yéen ñi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun daleen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy door ak liggéeykat yu minibus yu bokk ci aftu di borom tata yi ñoom nag dañoo bank seeni loxo li ko dooree tey ci altine bi jàpp suba ci talaata ji muy ñaari fan yoo xam ni kon dinañu ko taga témbeel dem gekk dikk bi li leen merloo nag mooy jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ci seen wàllu liggéey seen liggéey ñu gën koo ñoŋal mu bokk ca di leen fay salaire yu baax a baax contrat de travail ak une bonne couverture euh, seen boobu lee nag tax na rek ba dem ngeeg dikk bi daal di métti lool ci diwaanu ko Ndakaaru ci seen grève boobu sax la ñuy desandi ba tey ndax njiital aftu yi génnee nañu seen bopp ci boobule grève nee nañu rek ñoom laalewuñu si taqewuñu ci te it nag ñoo ngay dankaafu gréviste yi ndax nee nañu 14 euh, GIE euh, yi nga xam ni ñoo bokk si ñoom nañu bokk ci sen parc automobile bobu bu mu bokk rek ci dau daw ba nopi nak sak nañu ci ñi nga xamni ñom ñoom ñoo yoro karange réew mi ngir rek ñu daldi di len sen karange personnel ak bu sen matériel yi ñu tekk kepp ko xamni rek toj wala ngay yàq sen auto yi waye nak ngir jamm delu ci wat nenañu pare nañu rek ngir amal waxtaan ak gréviste yoyu nga xamni nak nag ñenn ci kat yi ñom ñoko amal ñu jall dal di leen dëgtal mbasum covid 19 2019 bi ak xayma bésu tay bi yemok altiné fukki fanaka ñaar ci wéru juillet atub 2021 wa ministère de la santé xamlé nañu ni si ñaari junni ak ñaar fuk ak juroomi test yi nga xamni mom lañu jotta amal ñetti témèr ak fanweer ak ñent ñom ñoo ci am doomu jangoro ji mu bokku ci témèr ak ñaar fuk ak juroom ñaar ño xamni ay jégué ñaalé way tawat yi lañu won té wa kër docteur adon len top ak ñaar témèr ak juroom ben ño xamni ño ngi ak doomu jangoro ji té kenn xamul ku len ko wal wala fuñu ko jëlé muy ay cas communautaire am nañu 17 cas grave di ñi nga xam ni ñoo nga Sowétas ndax feebar bi da leen a lottal ñaari doomu aadama lim nañu ko si ñu faatu yees ci mbas mi loolee yóbbu li mug ñi si faatu ba mu duggee ci réew mi ak léegi ba si junni ak téeméer ak juróom fukk ak doomu aadama lu toll si téeméer ak ñaar fukk ak ñetti si ñi nga xam ni ñoom la mbas mi tëraloon wër nañu jamono ji nag ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn way ñoo nekk ci loxol docteur ñu leen di faj ba léegi ñuy ñaan suñu borom yëkëti leen ci jamm ñu jall ci lu soxal njàng mekk njàngale mi ak lu soxal classement université yi nga xamni ñom ñoo gëna xarañ ci aduna wërngal képp na fi ci afrique mennum université du cap ba ca afrique du sud mo bokku ci ñaar téméri université yi nga xamni ñoo gëna xarañ ci aduna bi ci université yi nga xamni ñoo nekké ci afrique tam ñom ñoo jël raw gaddu ga ba tax rek mu jël raw gaddu gi ci fukki université yi nga xamni ñom ñoo gëna a ci penku Afrique seetlu bi nag mooy amul euh, benn réewu Afrique francophone euh, boo xam ni rek bokk nga ci boobule classement euh, ba ci UCAD bi nga xam ni mooy université Cheikh Anta bu Ndakaaru moom it bokkul ci fukki université yi nga xam ni ñoo gën a xarañ ci Afrique ci atub 2021 bi te moo ne UCAD boobu moo bokkoon rek si université yi nga xam ni ñoo gën a ràññeeku ci àdduna bi ñu woyal ba tey àddu jëmale ci njàngatu FAO di kuréelu États-Unis bi nga xam ni ñoom ñoo jëm ci alimentation alimentation ak agriculture ñoom nag seen rapport bu ren bi dani rek réewum Sénégal ci réew yi nga xam ni ñoom ñoo soxla ndimbal eh, ci wàllu ko dund ca la bokk yooyu la réew nag toll na ci ñeent fukk ak juróom ci àdduna bi yépp juróom-ñeent ya bokk ca Asie fanweer ak ñeent yépp nag ci Afrique lañu bokk eh, bu ñu sukkandikoo ci boobule rapport nag eh, njeexantalu Covid 19 bi rawatina ci lu soxal wàll ko koom-koom moom moo yokk néew doole bi ci réew yooyu leen ñu woyal ni ñoom ñooy saytu séddaleem ndox mi ci réew mi ñoom nag yëglu nañu ci jafe-jafe yi nga xam ni mën naa am ci euh, ndox mi ci yenn ci ay quartier mu bokk ci usine benn tali usine ñaari tali euh, Colobane zone A zone B Gibraltar waagu ñaay cité port Fass bopp Grand dacar ak euh, benn partie ci Médina li ko waral nak mooy liggéey bi nga xam ni moom la ñuy amal gannaaw incident yu bari yi nga xam ni mooy am ci réseau de distribution ci yooyu ne gox waaye nag ñoo ngay dalal camion citerne dinañ ko tek ci gox yoyu le ngir rek ñu gunge askan wi ci ñakuma euh, ndox mi ñu wëyal euh, dem ci diwan ko kolda fofé nak élément yu brigade régional des stupéfiants euh, dañu fa tek loxo lu tollu si témir ak fuk ak juroom ñaaru kilo yamba lolé nak dimanche demb ji lañu ko amal fi dendeek benn gox bu ñu naan mbogel di dëkk bo xamni nak digëntem ak département ba tollu la ci ñaar fuk ak juroomi kilomètre wayé nak way tak der yi mujj ñoo tek loxo jëfkatu ñaawte ñaawteef yooyule ndax dañoo daw bàyyi fa seen ay moto ñu seetlu nag ni lu euh, mel ni euh, trafic de drogue dafa bari bu baax a baax ci euh, gox boobule li ko waral nag mooy dafa nekk ci frontière Sénégal ak ñaari Guinée yi ñu jàll ci Wally Seck moom nag plainte bi nga xam ni defoon na ko contre imam Makhtar Sarr daal dina koy retire gannaaw bi nga xamee ni ñu bari ñoo ko sàkk ci moom te mu bokk ci oustaz Iran Ndaw fan yi yëpp nag gis nañu ni imam Makhtar Sarr moo ngi citoyen ci kilifa diina yu bari ci réew mi waye itam ci eh, ñenn ci eh, sénégalais yi ñu jéxal ak ki nga xamni mom mo lembe mi jamono ji ñepp di ko té moy mooy eh, kunkande mom nak ci plateau Sen tv bañu ko dalalon gannaaw bi nga xamé ni benua dako rek daldi di ñaan ngir mu fay lamp yépp bu fekkee ni rek amna xam-xam ci nonu rek ci saasi lamp yépp daldi fay loolu nak tax kunkande Kandé gëna deggal ni rek dina xar geej gi ci sénégalais yépp di ci daldi tek Sen seeni gët kon mbokkeen technot yi fi la ñuy xibaar yi ma jox leen dig dajee ëllëg incha allah waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte bës si cloche de notification bi ndax ngeen di jot vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf